bani saqiif dañoo ñëwal yonente yàlla muhammadu sallallahu alayhi wa alihi ñu ne ko ah, ñu dee xemem nañ islaam pour bokk waaye dañ la bëgg a jox nag sart loi luy tax ñi mën a bokk dañoo bëggoon suñ bokk bokkee daal saqiif suñ dëkk boobu ak suñ giid gi nga boole leen ci xaraman aminan xaraman aminan nga boole nga def ko ko màkka waaw haraman ka hurumi makkati saqiif nga boole ko ci xurum yi nga xam ne barab yi nga xam ne nit ñi dañ fay dem respect ko lool balaa nga fay dugg da ngay sangu xoddoo malaan yu weex di wax la bayka allahuma la bayka loolu lañ bëgg ñun daal bëgg nañoo bokk ci diine waaye suñu dëkk bi daal lañ bëgg nga yëkkati ko moo xam loolu xam nañ fulla ba dee nag waaw am nañ fulla nit day bëgg fi nga dëkk waaw <laughs> waaye du sotti de yàlla ne maa lànk hurumi makka ji ni mel du ne yunti yalla muhammad ko def di man man ma ko defon ci neex ma ci jamono ci ibrahima ba yonentu yàlla muhammad ñew ma continuer di selal ah ma continuer di selal kon bu ngeen bu ngeen tawatalé lol yalla muhammad moom amewul lol de du ne bu ko dekk bu ko neex rek mu def ko comme de hmm? li ngeen bëgg du mëna am muhammad nag maa ngi lay xamal lenn loo bugg bugg waa sa dugg ci diina bu ànd ak ñoom ci li wax noonu ba ci ànd ak ñoom de boo ci àndee ak ñoom du baax ci yow aaye bi ñuy jàng si loolu la wax ñu dem ci aaya sama borom ne wayn kaadu jege woon nañ ñoom bani saqiif la yaftinoonaka ñi fitnaal la xan lazi ba nga bàyyi la nga xam ne aw xëy naa wax yu nañ ko ilayka mu jëm fi yow tuuti konoon bani saqiif def la problème tuuti ñu dugal la ci jafe-jafe ndax ñu ngi la bëgg laaj loo xam ne yow mënu la ko amula ko tuuti konoon nga ànd ceeg yow ndax bëgg goo bëgg ñu mucc waaw su ko defee li taftariya ngir na ngeen fental xale naa fi ñun yàlla xëyro wóolu mooy ak li yàlla santaane su ko defee nga ànd ak ñoom ngeen def sa xiif mu bokk ci hurum yi loolu boo ca àndee dugg nga ci fitna de loolu duut maa santaane de wa isan boo defee loolu yow yonti yàlla muhammadu nga ànd ak ñoom la taqasoo ko dootuma la jàpp xalilan ngay xarit walaw laa an sabatnaaka hmm? la taqasoo ko duñ la jàppati xalilan ngay xarit de su duñ la defati xarit walaw laa an sabatnaaka su doxu doon ak dëgëral giñ la dëgëral su doxu doon ak yàlla su doxu doon ak sa imaan bu dëgër bi laqad kitta jege woon nga tarkun di jeng ilayhim jam fa ñam say an ak jeng xalilan gu neew de tuuti nga ànd ak ñam tuuti nga tarxees lu ko waral parce que bëgg na ñi gëm yàlla su gisee doomu aadama rek lim lim bëggal boppam la koy buggal sallallahu alayhi wa alihi bu gisee doomu aadama rek lim buggal boppam la koy buggal waaw ah, bu mi ko bëgg dugg ci diina bëgg dëkk nga def ko comme xel mi di ñox ñoxi ndax bëgg gu mu leen bëgg ñu mucc xel mi di ñox ñoxi yàlla na ko xëy tuuti ko nga def xay de tuuti ko doon nga fitna wu de xëy boo àndoon ak ñoom ci seen kàddu googu konoon de dootoo nekkati xarit su doowu doon ak imaan bu nekk ci yow bu doowu doon sama kaaraange man yàlla konoon tuuti konoon nga ànd ak ñoom ci seen wax ja lii la ko yàlla di wax isan boo àndoon ak ñoom yàlla yonent yàlla Muhammadu wax isan bo andon ak ñom ci loola la bani saqif wax so andon ak ñom la ka dana la musal wala danañ la musal di fal hayati, mbugalam aduna muñ ful wa di fal mamaati ak mbugalam àllaaxira muñ ful muñ dabul suma la laa top do fek la ka la yow yonti yàlla muhammad nasiran dimbalaale na fi ñun subhanallah borom bi wa taala nee soo jéngoon ba ànd ak ba ni sëqiif ca la ñuy sàkk noona danaa la duma ci àddina danaa la duma ci àllaaxira te doo fekk kenn ku la fay dimbali lii de yàlla yonent yàlla moom la ko wax yéeme na de ana keneen kon moo tax kenn amut sañ-sañ di fent lu la neex ci lislaam waaw créer lu la neex ci lislaam kenn amut sañ-sañ islam il faut nga bàyyi ko ponki lislaam yi ni ko yuntu yàlla muhammad tëralee nga fexe xam nam ko doon defee nga defee ko ku la gën a jege yàlla mooy ku la ko gën a xam te gën la koo topp te nag mu faawoon desoon ci tawhid nag tawhid buñ ko fàtte wéetal borom ci biir suñuy jëflante nag ak ci biir lislaam lu baax moom nuñ ko mën a yokkee rek danañ ko yóbbu ci sunnatan xasana man sanna sunnatan xasana waaw ku yoonal dara loo xam ne du farata du sunna ngëneel la rek bu la neexee def bu la neexee bàyyi waaye gis nañ ne nit mën na koo amal addis nit mën na koo delloo ci alquran nit ñi danañ ci jëriñu loola moom kenn du ko aaye ci lislaam ndax islam yi bëgg na développement kon lii la yàlla wax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi soo àndoon ak ñoom isan la asaqnaaka dixfal xayaati wa dixfal mamaati summa la tajidu lakka alayna nasira doo am kenn ku la dimbali wala moo tax kenn ku ne li ngay yëngatu nga ciy góorgóorlu jéem a xam lan la ci borom bi tabaraka wa wax lan la ci yéntu yàlla muhammadu wax lan la ci borom xam-xam yu màndu yi wax dégg nga wax bi aaya bii ñuy dugg moom it dee niroo na ak aaya bi ñu léegi de lan mooy sababu nusool bi moom ci yahood yi la wàcc moom itam waaw yi dañoo ñëw ne ko yow mi yàlla yónni nga ne muhammadu yàllaa la yónni Hmm? bu fekkee yónnentu nga te dëgg la nañ dem ñu dëkk saam mooy Palestine Israël Syria moom lañ daan wax saam area boobu léegi lañ ko séddoo def ko ay réew-réew su fekkee li nga wax dëgg la yónnentu nga nañ dem saam ab yónnentu saam la war a dëkk seetal yónnentu yi ñoom ñëpp saam lañ nekk ku ci nekk doon saam sax gàddaay nga ñëw saam soo bëgg a bu fekkee yónnentu nga nañ dem saam yàlla na ko boo fi bàyyee seen nit ñi dem saam de ay wer yu neew ñom ñep ñi hal ko ndax ab yonent bu mos a bàyyi nitam ñi genn rek dana fekk ñi hal makka ngi ni kera ba nga nyu ñew medina ci lañ hal abo aboo dem mangalen ñew songu la di xex ak yow ba keroog magi makka ñek eh, eh, diplomatie makka diplomatie makka yeb ci xare ba dal lañ leen rayee sooy genn ñi alk te li yehudi ñoko ko na ko ñun nag boo nangoo ñi dem saam danañ la gëm te buñ la gëmee ñun danga am mbooloo de ndax ñun ay boromi xam-xam lañ boromi mbooloo lañ waaw suñ la gëmee nekk ci sa gannaaw di nga am mbooloo de yàlla na ko bul dem de bul dem de Medina Medina mooy sa dëkk Medina mooy sa dëkk bul dem de waaw góor aaya baa ngi nii sama borom ne wa in kaadoo jege woon nañ ñoom yahóot la yastafizunaka ñi génn la minal ardi nga joge Medina biñ ñëwee na la nañ dem saam tuuti nga ànd ak ñoom li yuxrijoo ko ngir nañu génn la min nga génn Medina wa isan boo génnoon ànd ak ñoom laa yalbasuuna du ñu sax xalfaka sa gannaaw ñoom waa Medina illaa xalilan a ñu tuuti ñi xal soo génnoon rek ñoom ñoom ñi àl ko la daloon yonent yi rek loolu sunnata man loolu mooy sunnaa ka nga xam ne xat arsalnaa yónni nañ ko xabla ka njëkk la loolu moo doon sunnaa yónnentu yi la jiitoon min rusulinaa ci suñuy yónnentu waxtu wuñ génnee bàyyi seeni nit balaa ñoo def fekk ñu xal wala tajidu doo fekk li sunnatinaa ci suñ sunna ñun mu taawilan muy wecceeku suñ démb mooy suñ tey de la daloon yónnentu yooya moo lay dal bu boobaa booy génn mi dina ànd ñoom dem saam ñoom ñu al ko wala tajidu sunnatinaa tahwiila ndax ñun suñ sunna mooy suñ yoon suñ aada suñ baax ñun yàlla du soppeeku démb rek mooy tey ci ñun waaw amuñ démb amuñ tey amuñ suba soo génnoon daal laa yalbasuuna xalfaka illa qalilan diir bu gàtt la ñuy sax sa gannaaw rek ñoom ñoom ñu alku waaw hmm. kon nag loolu moo doon baax yàlla mooy ab yónentu bu gàddaayee nitam ñi génn rek ñam fa bàyyi dañuy alku mooy sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina yonent yi ñu jiitoon yépp loolu mooy suñ aada ci ñoom te wala tajidu li sunnatina tawila ñun suñ sunna du wécceeku lii la ko yàlla wax ci la dal di far fomm la xam ne tuuti mu nangu ko nangul ko yahud ji waaye lii yëpp yàlla daf koy jàngale rek pour ñun waaye yontu yàlla Muhammad kay programme sotti na ndax moom lépp ci loxo yàlla nekk ñépp moo ëpp kaaraange waaye yàlla nag daf ko teg ci suñ kanam muy suñ royukaay royukaay bu rafet foog mu jàngal ñu këram ak diggante mook saaba yi diggante mook noon yi pour ñun ñu man cee jëriñoo boroom kër du gaaw a gàddaay kër di génn boroom kër warta gaaw a gàddaay yaa jiite kër gi njabot gi tàmbalee xex xulo nga mere ne man ka dama genn kër gi xamal leen da nga gëna yaq way waaye deferu la de da ngay tok nga xooleen def li nga man ci kaddu ak li nga man ci jëf lu mu laaj nga def ko lu la ci yalla may nga jël waye genn kër gi xamal leen deferu la da ngay gëna yaq yàq de ah, genn ñi gëna ñi gëna bare di yi rek ñi gëna ah, kon bul genn ali ah, lii la yàlla woo bul dem fenn togal yahud ku man na la gëm comme abdullah ibn salam ku manul na dem luñ la wañi dina islam ku ci dugg ya ci yokkee waye do ko yok dara ndax pro nisaamu yalla la organisation la bo xam yalla ko programmer lo ci dox so bokkee mu dem so mu dem bokal rek bo bokku sa affaire la waaw mom mom moom la rek saxaar jeri la rek da ngay dugg wala nga tok mu bayila fi wala nga ci ko yoni soo bañee dugg boo taxawee ci kaw yoon xam nga num lay def soo bañee dugg mu dem bàyyi la duggal dégg nga wala nga jot ci kaw yoon yi taxaw mu ci la fi loo rek la ma tax war ibnu xataab bi mottalee julit ñi ñeen fukk moom moo mottalee woon julit ñi ñeen fukk foti borom xam-xam yépp ni ci islam amee ndam omar nam ñemee bam mu duggee la ne nañ génn nañ nangam sëriñ bi cheikh ibrahima mu ne islam kay omar kay mu amee ndam ci Islam, omar moom bu dugg doon xanaa islam du dem islam du nisaamu nit omar bu tax buñ koy tudd di wax njàmbaaram di ko tudd ba tey di ci turam islam ko ko may hmm? te moom bu bokk doon tam islam kan dana dem kon nag bul génn toogal bul dem saam saam daal dem na fa ci gannaaw buñ ko yónnee mooy ba muy rañaan ba muy rañaan ndax wax dëgg nag bi anbiyaaw yi la dëkk dëkkab yaaw yi la ni ko di waxee dëgg la yonent yi ci gën a bari yëpp lañ leen tëral ñu bëri ko fa judduwut sax gàddaay nga dem fa yonent yàlla Iisaa ak Muusaa yëpp fa lañ juddoo Ibrahima fa lañ ko rob hmm? kon nag dëkk bi anbiyaaw yi la waaye taxut nag yonentu yàlla ma ma dem dëkk fa nag mangoog ñi continué waat ci beneen aaya boo xam ne yàllaa ngi ciy jàngale julli waxtu juróom yi aqimi salaata taxawalal julli yow yonentu yàlla muhammad li dullooki samsi ñeexalu ah, dégg nga ah, fenku jant bi waaw ilaa xasaqi layli jëm ba guddi lëndëm mu yóbbuwaale julli tisibaar julli takkusaan julli timis julli gexe ñoom ñëpp dugg nañ ci li dulloo ki sëm si bu jant bi fenkee ba jant bi di sox guddi gi di lëndëm loolu moo yóbbuwaale ñeenti julli yépp wa quraan al fajri ak alquraani fajar ji muy jullik fajar muy juróom inna quraan al fajri naka jullik fajar kaana nekk na masxoodan da luñ seede mooy teew ak malaayika yi ñaari kuréel yi yépp kuréel yi nekkoon juuti fanaan ci guddi gi dañuy julleeg ndoor ak fajar ci jumaa yi ci jàkka yi ak nit ñi su ko defee ñi nga xam ne ñëw ci bëccëg bi ñoom itam ñëw nañ dañuy ñëw fekkee si fajar suñ jullee fajar nga xam ne ñoo fanaanoon daal di ekkete ku dellu ci pays yàlla bi ñi nga xam ne ñoo war a endu ñoom ñi indu loolu moo tax mu tuddee ko ah, julli guñ seede julli gehe gi nga xamne moy mujjitam non la mel malaaka yi fanan ci dañuy ñew fekke ko malaaka yi wara ñibi tam dañuy dañ koy fekke mom tam julli guñ sédé la lolu moo tax yonent yàlla muhammad waxon ne su ngeen xamoon li ci julli euh, euh, ge ak julli fajar da ngeen ko fekke ji même bu fekke bu ngeena dem da ngeena a da ngeen dem julli yu jafee la fajar day fekk nga euh, nelaw yi neex ge day fekk nga sonu yaa ngi sangu di noppaleku hmm? sama borom ne aqimi salaata taxawalal julli yow yent yàlla muhammadu li dulloo ki samsi ñeel fenku jant bi am na sax ñu wax ne dulloo ki samsi mooy bu sawaal jotee dulloo ki samsi mooy bu jant bi yëkkate koo rek ilaa xasaqi layli jëm ba guddi gi lëndëm mu yóbbu waale ñeenti julli yi tisbaar takkusaan timis gee wa quraan al ak alquraani fajar muy jullik suba nga xam ne dañ ciy jàng alquraan te ko inna quraan al fajri naka dégg nga alquraani fajar kaana nekk na mooy jullik fajar mashhuudan da luñ teewee di luñ seede moom am ñoom ñoom ñaari kuréeri malaayika wa min al ak ci guddi ya yow ya, yonti ya, yàlla muhammad fa tahajat na nga jog na nga xeew na nga fok bihi ci guddi ya di jang alquran nafilatan ngay naafele lak ñeel la wala ngay ut muy farata muy bu farata la ci yent yalla muhammad hasa warna na an yëpp xasaka la rëbb ko sa borom maqaaman nga dekkiwaaleeg maqaaman maqaamam moo xam ne maamuran muñ sant la maqaamam alhamdulilahi ci lañ lay dekkal bu ëllëgee jullil waxtu juróom yi tey naafale guddi yi ni ko yàlla santee nii nag moo tax moom naafale guddi farata la ci moom ab yonentu ñemewut a nelaw guddi ba guddi gi jeex waaw ñemewut ko naafale ci ñun nag ñun du farata ngëneel la rek luñ sopp la sunna la lu baax la xut ndollal la kum neex nga def ko su la neexee nga naafale guddi gi yëpp bu la neexee nga naafale gen wàll gi bu la neexee yaa xam ñaari ràkk ba téeméeri ràkk ba ñaar téeméeri ràkk nga ut la rek ci yàlla boole ko di jàng alquran loolu moom dañ ko sopp ci yow gannaaw boo jullee gee yonti yàlla maa mën na niñ ko santee mu julli gee noonu lañ ko santee mu naafale ci guddi yi moo tax ñi ma wut a nelaw ba bët set déedéet xalaatu ko sax lu mu nelaw wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan lakka yàlla waral na ci yow ngay foog guddi di jóg di naafile moo tax mu nekk farata ci moom waaye nag ci xàqam ci dañ ko ko jagleel ci xàqam ñun du waaye ndollal la yàlla na ko danaa la dekkal bu ëllëgee xansaa googu doogu firi xamaan na de déedéet waaw xansaa war na la yàlla daf koy def dogu na ci boo ëllëgee maqaamaam mahmud raayaab alhamdulilahi bi mooy dégg nga ah, daraapowu alhamdulilahi bi mu koy moo koy sant yàlla moom moo moom moo cay moo cay toog waaw maqaamaam sant yàlla ma tax xeetam ñooy xeet wuy sant yàlla borom bi ne ko bu ëllëgee dinañ la dekkal jox la mahmuda muy alhamdulilahi rabbil alamin منظر صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونعن على ما قال ربنا ومولانا من سائل لا من ون ين تعين بي جيخنا سوكو دافي جيم كو ييوال ان شاء الله بندل دلو زيد نكونتيني تي وقل ربي أدقلني مدقل صدق وأخرج لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا yàlla nañ ànd ak ndimbalal borom bi tabaraka wa taala yal nañ fekkee yal nañ tal yal yàlla déggloo ñu te toppaloo ñu barkeeb alquran yàlla def ko ci réew mi def ko ci ñi jiite réew mi def ko ci imaam yeeg képp ku nekk ci kanam njaboot gi ñu ubbi leen laay bi ci foofoo sib si wan Μπορώ πειράζει σε πολλές πρακτορές του νομοκοινωνίου του Βιλενδάιμι και το 6.193 κόπο 6.193